Hmm, bismillah kon mbokk yi fàttali na rek ba tey ñu ngi dellu si waat ak yéen suñu jotaayu tafsirul quran comme ni ñu ko baaxoo defi jamono bu nekk rek ci waxtu wi insha allahu taala xam ngeen ni ba tey rek ñu ngi ci suuratul anam tollu ci suñu numéro 14 muy fukkeel bi ak ñeent toll ci aaya ji nga xam ne ba tey ci lay wax ak sunu maam Ibrahim Xalilur Rahman sunu borom di fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi nga xam ne fila la Ibrahim jaar ba daj dëgg ci kaw setantal këwnu bi ba xam ne lii am na boroom mu nekk loo xam ne keneen ku nekk itam mën na caa jànge yow mi fekk nga am imaan sax boo ci setantalee mu am lum la dolli dañ koy wax ne Ibrahima alayhi salaam bi nga xamee ne jug na ci njëlbéenam dañuy wax ne kawnu bi bokk na ci li nga xam ne jàngal na ko boromam subhaanahu wa taala loolu nag dañ koy wax waaye maanaam ñëpp la koy jàngal li wax adduna dafa mel ne téere buy jàngale suñu borom rek soo ko nangoo liir rek day traversé nga bañ koo bàyyi mu jàll nga settantal ci léegi tey rek nga xam ci sa borom lu baree bare baree bare te da am yaqin li suñ borom di wax rek wa ka ayyi min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alayha wa hum anha mu'ridun di wax ne kawtif yi mi ngi ñuy romb ndeyjoor ak càmmoñ waaye nit ñoom ñoo ci dul seetantal waaye adduna bi rek ku ci seetantal mu jàngal la suñ borom subhaana wa taala loolu nag la suñ borom jubloo wane fii rek ngir nit ñi bàyyi xel kawnu bi xam ne doy na ngir jàngale yàlla nga xam ne loolu yow ba fii nga toll nii sax di magum jëmm nii rek da nga ciy mën a settantal adduna bi nga jàng ci lu bari waaw boo xoolee ku mel ne Zeydina euh, Hamza radiallahu anhu bim tuubee dugg ci lislaam ci settantalam gis na ne kawnu bi rek moo ko njëkk jàngal ne seen yàlla yi ñu jàpp di ko jaamu yàlla ëpp na loolu moo tax bi mu jaakaarloo yonent bi sallallahu ko yëpp na axi indama ajubu saxra bil layli udriku anna allaha bi mu jaaree ci àll bi daal xam na ne wax dëgg yàlla ki bind asamaan ak suuf bokkut ak sun bant yee ñu dugal ci benn ne tëj ko di ko jaamu suñu àll yee ñu samp ci biir kaaba gi daal wax dëgg yàlla xam naa du borom asamaan ak suuf xam na ne yàlla ëpp na loolu moo tax suñ borom nag di ñu wan ibrahim alayhi salaam fi mu jaar mu ne falama falamma janna alayhi laylu ra'a kawkaban qaala haza rabbi falamma afala qaala laa uhibu al afilin mu ne dafa mel ne ku tàmbale ci guddi gi guddi jot mu gis biddiw yi ci asamaan mu leer nañ te kawe mu ne falamma ba nga xamee ne jann muur na alayhi ci mu allaylu guddi gi raa mu gis kawkaban biddiw eh, guddi daal la teen gis biddiw bu yànji xelam jox ko nag daal lee daal xanaa mu war a doon yàlla comme moom dafa kawe lool tiim ñu ca dëgg-dëgg daal loolu xaj na moo war a doon yàlla waaye daal bant sama waajur yi yett jaay moom du yàlla moom waaye nee na qaala haza rabbi jàpp ne daal loolu mooy yàlla moo tax mu ne lii daal haza rabbi waaye nee na falamma afala ba biddiw ya suuxee itam xaala mu ne laa uhibbul afilin non man moom d'accorduma ci yàlla juy juy nëbboo ko feeñ waaw bëgguma daal way suux yàlla dëgg du war a doon moom itam luy dikk ka dem waaye falam maara alxamara baasiqan nee ba nga xamee ne gis na itam weer mu nekk xamar doon weer woo xam ne mi ngi toll ci mat fi muy defe benn bul bu mag boron mooy fala maara alxamara baasiqan weer wi daal di fenk moom daal di leer tax mu ne haza rabbi qaala haza rabbi lii moom tey moom mooy sama borom waaw weer wi moom tey ku ko jàpp moom am nga yàlla ndax moom moo ëpp biddiw bi xañ na di weer gën a jege suuf moo tax weer boo koy xool da ngay jàpp ne moo ëpp biddiw moo tax mu ne haza rabbi waaye falamma afala qaala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al dalin daalin falamma ba nga xamee ne afala suux na moom weer wi xaala mu dellu wax ne ba tey rek lii du yàlla te xam naa ne la in lam yahdini rabbi la in lam yahdini giñ naa ne bu ma gindiwul rabbi sama borom kon la akku nan na wér ne ne danaa nekk minal xaw mi di bokk ci nit ñi ab daalina ñi di way réer xolom bañ mu ne ci dëgg-dëgg rek ba tey lii du yàlla ba ci sax bi gisee jant bi fala maara alxamara baasiqan bi nga xamee ni jant bi fenk na nga xam ne loolu bëccëg la mu gis jant bi gën a rëy ci bëtam ba noppi gën a leer ba ànd tàngoor mu ne yii tey moom yàllaa ngi qaala haza rabbi mu ne lii nag moom mooy sama boroom moom daan na moom sax hada akbar dafa gën a rëy moo ëpp yee yëpp waaye falamma afalat bi jant bi suuxee it xolam nanguwul xaala mu ne yaa xaw mi inni bari'un mimma tushrikun yéen sama nit inni weer ne ne man de bari bari'un ku dañte loolaa mimma ci lépp loo xam ne tushrikun yéen a ngi koy bokkaaleeg yàlla comme xolam mi ngi wër dëgg rek jàpp na ne yàlla moom faw la gën a màgg te gën a rëy lay doon moo tax ba gisee biddiw sori lool tiim ñëpp mu jàpp ne loola moo war doon yàlla waaye du bant yi ñuy jaamu ba mu gisee weer ëpp ko mu ne kon yàllaa ngoog ba mu gisee jant ëpp leen gën leen a yaaññi gën leen leer ba tey mu ne yàlla ngook waaye ba loolu lépp suuxee mu ne dañtalu naa ci yëpp ndax du yàlla inni bari um mimma tushrikun daal ne inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda maa ngi jëme sama jëmm sama lépp di ko jébbal yàlla mi nga xam ne moo bind asamaan ak suuf ki bind lii lépp daal kooku mooy yàlla waaye du mbiri ci dëgg-dëgg daal yàlla du lii may gis ak bët du biddiw du weer du jant du asamaan suuf waaye yàlla dëgg ki bind mbir yooyu mooy doon yàlla ki bind lii may gis lépp daal maa ngi koy jébbal sama bopp wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda daa ne xaniifan mbir muy aji sell ak njullit mooy mi ngi wéetal yàlla ci lépp wa ma ana min al musrikin daa ne man may bokk ci ñi nga xam ne dañuy bokkaale yàlla ak leneen lu dul moom moo tax bu ngeen gisee ku tedd ki si Ahmadul Xadim maanaam xasida yu bari léeg-léeg nga gis muy bind di ko tàmbale wajjahtu loolu lépp yeesal ak jaayante la ak jébbal gi mu jébbal boppam yàlla parce xasida goo gis mu tàmbalee ci wa jeextu rek dafay def nii sun maam Ibrahima defoon fekk na pas-pas boobu mi ngi ci moom bu yàgg waaye dafay yeesal di dëggal di dëgëral digganteem ak boroomam di gën a jébbal boppam yàlla wa jeextu kulliya bi hamdin wa shakur nga xam ne yeesal ak jaayante ak yeesal jébbal gi mu boppam yàlla la cay jiblu te bu doxee tuuti ci biir rek nga gën a gis li taxoon mu tàmbalee ci wa jeextu jooju am na wajjahtu wajhi liman takrimahu baana ak saa xurbin min allahi yu bari moo tax suñu ibrahima ne inni bariu mimma tushrikun inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda anifan wa ma ana min al mushrikin nga xam ne lii lépp maanaam ni ko suñ borom jàngale ne ci ibrahim li muy wane rek mooy wan nit ki buntub settantal ngir nit ki jëfandikoo xelam ba mën a idraak mën a xam suñ borom subhanahu wa taala ورخ سرين بي واخنا كو مسالك الجنان فادم النظر في مرآة فكر مع الخلوة في الأوقات دان سوك دفي رك يبن لك الحق هناك يا خليل لأنه سبب إيقاد الخليل دان بو جفنديكو سام خل ستنتال دان سيتو خلات خلات دا فا ملني سيتو بو خامني دا فا ام يوم لاي وون دان سو جفنديكو سام خل تا خلات دغ رك دا نغا داج دغ دان بو خوله sun maam ibrahima xalilur rahman sax ci settantal ak xalaat boobu nee na mooy sabab bi mu amee yaqin ci sun borom ci jaar gi mu jaar ci settantal biddiw yi ak weer wi ak jant bi ba xam ne yàlla romb na loolu lépp ba wëlbatiku jébbal boppam yàlla sàkku yàlla gindi ko ba sun borom gindi ko nga xam ne ci xalaat ci la sa ngëm di dëgëre ci ngay amee yaqin waaw noonu la ko waxee izil fata iza tafakkara qawi imanuhu xaqiqatan kamaaru wii لأن وظهر الحق له يقينا فيحتوي الصفاء والتمكينا آه، وقوة الإيمان بالجبار بقدر تعميقك في الأفكار ني نيت كي بو خلاتي رك سي لا ايمانم دي دغري دغ دغ سي لا امي يقين سي سون بروم ني دغ دي دال دي فيغ داخ كونو بي داف كاي جانغال سون بروم سبحانه وتعالى داني كات نو نغم دغ دغ سي يالا يان كوي جيلي سي كيم نيغا غن خوتي لي ساي خلات nga xamne fofu serigne bi daf ci andi njariñul xalaat ak kenn ku ne booy xalaat fi nga orienté sa xel jëmee ban ban ban résultat lay indi waaw fi nga jëmee sa xalaat ban njariñ lay jur waaw wax na fa bu fekkee julli bi dafay xalaat ci tiyaabe ji yàlla dig julli ñi di leen ko fay neen loolu dana ko dolli mu gën a xemmi ma jëf lu baax ngir aw yoom gën a yokk gën a bari wal fikru fi sawaabihi lil muminin gadan yasidu rahbatan lil muslimin nga xam ne da koy sawar sawarloo ci gën a topp yàlla ngir bonisam yooyu gën a bari ngir ëllëg mu gën a bari aw yiw loolu mooy ki nga xam ne dafa xalaate ci tiyaabe ji ko yàlla dig ci li muy def hmm, ëppante nañ nag ay daraja ba ci bu xalaatee ci maanaam mbugal mi yàlla tëkkoo ci mooy yàlla ni mu koy dimbalee ci mu wattatiku ak mooy yàlla wal fikru fi lxiqaabi lil kuffaari fi naari yuftil abdalis di jaari dana ko yóbbu ci mu gën a jaajju gën a wattandiku lépp li yàlla tere su fekkee dafa xalaat ci côté mbugal bi yàlla di tëkkoo ñi koy xam ne dañ ko weddi wala ñu di ko may kon fenn fa ne boo fa xalaatee ak résultat bi ngay am ba ci sax nee na kii xalaat ci suturaal gi ñu yàlla suturaal suñuy bàkkaar soo ci xalaatee daf lay dolli kersa ci sa digganteeg sa borom wal fikru fi sitri suno bi naa hona yazidul istiya minhu zamana boo xalaatee ci ni yàlla suturaale say bàkkaar day tax na nga am nga nga am kersa nag boo dee nit boo dee gora da am kersa nag ci jéem a jéem koo dakkal loo man ak it jéem a am amit yaakaar ci ne ni mu la suturaale nii ci àdduna yi ëllëg mën na laa suturaale noonu wax itam ñi nga xam ne dañoo wan ginnaaw àdduna suñ xalaatee ci jeexu àdduna ak ñàkk soloom nim leen di gën a doole ak cawarte ci gën koo mën a dëddu ak gën koo suur waaw wa fikratu zuhaadi fii fanaayi duniyaahumo wa qillatil wafaayi li taalibiha tujibu zdiyaada nashaatihim wa zuhdihim rashada nga xam ne ñi ñi àdduna ñoomit it suñuy xalaat ci ak jeexam ak ni muy def ay xaritam nga nuñ àdduna ngay xalaat ni muy def soppee boppam ñi ko tànn bëgg ko sax gis nga ni leen di wore soo ci xalaatee yow ne danga koy gën a suur gën koo dëddu xam ne amul kóllëre daa di ñëw nag ci ñi nga xam ne dañuy xalaat muy wa fikratul ubbaat muy jaamukat yàlla yi xam nga fee waxoon na sax moom moomineen yi gëm yàlla di xalaat ci fay gi leen di yàlla fay mais ñi ñoo leen xaw a gën a ni yéeg ci niveau buñ nekk ay ubbaat ay jaamakati yàlla lañ waaye dañuy fa xalaat ci fay leen gu rafet gi yàlla lay def nga xam ne danaan la benn na nga may defal ma fay la fukk man jaa bi la asanati fa loo asru am saaliha nga xam ne ñoom fii jamili sawaabihi ci rafetu payam gi ni suñ borom di fay leen te jaam bi foofu la ñuy xalaate ñoom it mu dolli leen ca warte nag ci gën a topp yàlla ak gën a sàmm waaye nag ñi ñi leen ñi tiim yooyu ñëpp nag mooy aarifuuna billahi wa fikratul aarifi fi l alaayi wa naamaai fatiri samaai ñooñu taziduhu mahabatan lil xaq wax na dëgg de subhaanahu rabban li kulli xalqi nee na aarif yi ñoom bañ xalaatee ci xéewali sun boroom yi lim leen di dolli mooy bëgg yàlla ak wax dëgg waaw aarif yi ñoom suñ xalaatee ci xéewali sun boroom yi subhaanahu wa taala lim leen di dolli mooy bëgg suñ borom subhanahu wa taala li ñuy wax xubbul munaim am na feneen fu mu koy wax ca biir téere ba maanaam dafa am ñoo ne ci xéewal gi la ñu bëgg waaye dafa am ñoo xam ne dañuy bëgg ci ki xéewle waaw dafa am bu leen suñu borom joxee xéewal ñoom ci jëmmi xéewal gi la ñuy bëgg kontaan ci ne yàlla defal na ma lii déedéet enrif ñoom ci jëmmi yàlla la ñuy bëgg ki ki xéewle xéewal gi la ñuy bëgg te it bëgg ko la leen di dool dolli xéewal gi dafa leen di dolli bëgg suñu borom subhanahu wa taala loolu nag li leen ko mooy niveau biñ nekk moo tax xam giñ xam suñ boroom moo tax moo tax tam jëfandikoo sam xel di xalaat am solo lool alxuraan du jeex muy afala muy wax afala tadakkaruun ndax du ngeen du ngeen du ngeen du ngeen du ngeen fàttali ko ak yatafakkaruun ndax du ngeen xalaat ak ulul albaab yooyu yëpp rek suñ boroom dafay joxañ nit ki ngir mu jëfandikoo xelam kon suñ borom da ngay gis ne nettali gim nettali fii ci Ibrahim ak ni mu ko résumé jubluwu ci ludul rek nit ki jëfandikoo xelam ci kawnu bi xalaat ngir kawnu bi jàngal ko yàlla nga xam ne booy settante léeg da gis suñ borom ni lay joxeñe moom ci boppam sax ci biir alquran di la joxeñ lu aju ci kawnu bi naan la xoolal xanaa gisoo alam tara anna allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fi l ardi naan la wa shamsu wal qamaru wal nujumu wal jibalu wa shajaru wa dawaabu wa kasiru min annaas ah dante wa kasirun xaqan alayhi lansab wa man yuhin allahu fa maa lahu min mukrimi inna allaha yafalu ma yasha nga gis nim lay wane ak nim lay joxeñe kaw nu bi di la wan ne la maanaam li fi nekk lépp mi ngi wommatul suñ borom di la wan ne asamaan yeeg suuf ak jant bi ak weer weeg biddiw yeeg montagne yeeg garab yeeg ndundat yi ndaw ndawaan yeeg yëpp rek ñu ngi sàbbaal suñ borom subhaanahu wa taala ba ci lu bari ci nit ñi sax waaw bam des ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla loolu lépp war am lum la lum jur ci sam xel ak ci sa xol lele nga gis ma la wataral arda hamidatan waaw nga xamné ngay soosi wo woo waaw dara saxut dir bu gàtt rek fa iza anzalna alayha alma ihtazat warabat wa anbatat min kulli zawjin bahij lol di la jàngal nak dalika mo lol di la jàngal bi anna allah huwa alxaq dalika bi anna allah huwa alxaq loolu di la wan dëgg dëgg ne yàllaay dëgg te wa annahu yuxyi wa yumiit mooy dundal te mooy rey aka maa leer ne moo ma fi andi te moo ma fi jëlee bis rek lay xaar faw rek dana ma faat loolu leer na ma nañ waaw mu jàll wax nag ne wa xaajuhu qawmuhu qaala atuxaajuuni fillah wa qad hadaani wala axaafu ma tushrikuuna bihi illa an yashaa rabbi cheya وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون wax na dëgg mu ne nag ibrahim waxaajahu dàgg sante naag moom xawmuhu aw nitam mooy ñi nga xam ne ñooy ay nitam dàgg sante nañoo moom ci weddi ko qaala mu wax leen ne leen atu xaajooni fillah ndax da ngeen di dàgg santeeg man ci yàlla waqad hadaani te man yàlla gindi na ma ah man de wala axaafu du ma ragal nga xam ne bihi yéen ngi koy yàlla ak moom daan na ay yashaa rabbi shay'an illaa ay yashaa rabbi shay'an nag mooy rek istisna munqati la mooy laa yaduru wala yanfau illa billah waaw mooy man ragaluma ci lii ngeen di bokkaale ak yàlla xam nga ñoom daanañ egg ci seen xërëm yi ku ca def loo ci warta def dañuy def ne laana dana dal ci sa kaw waaw ku ñàkk teggin ci xërëm bi rek dañuy jàpp ne musiba mu rëy dina ci sa kaw waaw ba leen Ibrahima ginnaawoo dem toj yàlla yëpp yàqate ko jël semiñ wu yëkk wékkal ko yàlla ju mag ji ñu dikk tiit lool jàpp ki def lii moom faaw alkandi ju rëy dal ci kaw boole ko mer lool naan man faala haza bi alihatina ana kan moo jëf lii ci suñu yàlla yi ah te fekk Ibrahima moo dem toj yàlla yëpp ba mu des benn bu mag bu mu wékkal ko semiñ bi pour buñ dikké mu wal leen rek li ngeen di jaamu amul njariñ mun leen a ñoddil njariñ mun leen a dàqal lor daal di mer daal ne am am ko ne leen daal dégg naa benn xale bu ñuy wax Ibrahim daal xam naa ne moo def lu mel nii fekk moom moo waxoon ne tallaahi la akidanna asnamakum baada an tuwallu mudbirin moo tax fa jaalahum juzazan illa kabiran lahum laalahum ilayhi yarjiun waaw moom moo waajoon ne moom bis buñ demee ba bàyyi ko fi dana dana yàq yàlla yi ci la jëlee nag daggate yëpp ba des bu mag bi biñ laajte ñu ne ku ñuy wax Ibrahim daal moom jàpp ne lu mel ni moo koy def ndax doon na wax lu mel ni pexe kum doon pexeel yàlla yi biñ ko andee ne ko anta faxalta haza bi alihatina ya Ibrahim yow Ibrahim mi ndax du yow yaa def lii suñ suñu yàlla yi muy leen bal faalahu kabiruhum haza déedéet fasaluhum in kaanu yantiqun ne leen ah yàlla yaa ngi nii bu mag bii kay lay war doon laaj leen ko baam bim mu ne leen nag leg laaj leen yàlla yi ñu ne ko nag xam nga ne yàlla yi duñ wax bim ne leen laaj leen yàlla yi ñoom ñëpp dañoo xoolante delluwaat ci seen bopp xam ne yaras nañ fa rajaxoo ila anfusihim fa xaalu innakum antum zalimun suma nukkisoo ala ruusihim laqad alimta ma haulaa yantiqun ñu xam ne moom lim mu leen wax yay na leen xamatul li ñuy wax ñu ne ko xam nga ne daal yàlla yi duñu wax laqad alimta ma haula yantiqun yaa gën a xam ne yàlla yi duñu wax muy leen alors yéen lu munta wax mënu leen a jariñ mënu leen a lor nu ngeen koy jaamoo afa taabuduna min dunillahi ma laa yanfaukum cheyan wala yadurrukum ne leen uffin lakum walima taabuduna min dunillah afala taxqiluun yéen da ngeen di jekk di jaamu loo xam ne mun leen a ñoddil njariñ mun leen a dàqal lor bu yëkkati ko yéene ko yëkkati bu tëddee yéene ko tëral daal daal leen xaw a mel ne ku leen ku leen saboté ne leen uffin lakum ñoom it ca lañ mere sax ba jël décision ngir taal sawara woo ngir lakk ko xariqu wanzuru alihatikum in kuntum faailin ba da ko suñ boroom xeetile moom itam ci yaanaaru kuuni bardan wa salaaman ibrahim motax mané len man nan lay ragale li seen xaram yi ngi ni bokkaale ak yàlla ñoo lor di ñoo jariñ lu lu soob yàlla rek luñ defi da fekk mu soob yàlla yàlla do ngay jariñ moy lor illa ay yashaa rabbi tawasi'a rabbi kull sayin ilma yàlla xam amuna lépp wasiha xajoo amuna rabbi sa borom kull shay'in mépp mbir ilman ci xam afala tatadhakkaru ndax du ngeen xalaat ndax du ngeen fàttaliku ndax du ngeen jëfandikoo seenum xel daan na man wa kayfa axaaf naka laay ragale maa loo xam ne asraktum yéen ngi koy bokkaale ak yàlla yooyu nan laa koy ragale te wala taxaafoo ne yéen du ngeen ragal ci ne annakum ashraktum billah yéen mi mbir yéen ñi nga xam ne biir na leen ni yéen ngi bokkale yàlla ak leneen te tiitu leen ci waaw maalam yu nazil bihi aleykum sultaan yoo xam ne amul wenn lay wu ci yàlla wàcce wu ngeen mën a sukkandiku ne lii lu ngeen war a jaamu la yéen ñi bokkale yàlla ak leneen di jaamu leen lu dul yàlla ngeen war a tiit tiitu leen man nan lay tiime tiite man man mi am imaan gëm yàlla rek te di ko jaamu xanaa bu tiit di am yéen yéen a war a tiit wa kayfa axaafu ma asharaktum nan lay ragale lii ngeen di bokkaale yàlla xam naa ne mënul dara di te yéen wala taxaafoona annakum ashraktum billah yéen yéen war a tiit tiitu leen yéen a ci bokkaale gi ngeen di bokkaale yàlla ak ludul moom maa lam yu nazil bihi aleykum sultaana loo xam ne lam yu nazil bihi benn lay aleykum ci yéen mooy amul firnde daal kon nag fa ayul fariqayni ana ban ci kuréel yi axaqu bil amni ñi gëm ak ñi gëmul ñan ñoo ci war a gën a yàlloo am sécurité am kóolute am xel mu dal in kuntum taalamuna bu fekkee xam ngeen ah, ñun ñi gëm jenn yàlla képp te di ko jaamu yéen ngeen ne fi bokkaale yàlla ak ay mbir yu kenn xamut yéen ngeen war a tiit tiitu leen jàpp na ñun dañoo war a tiit <laughs> déedéet déedéet ñun ci yàqin lañu nekk allazina ñi nga xam ne amanu ñoo gëm yàlla walam yalbisu imaanahum te seenu ngëm raxun ci dara bi zulmin ci tooñ ñoom tawxit la ñu am dañoo gëm yàlla te wéetal ko ulaayka ñooñu daal lahum ñeenal al amnu kóolute ñoo ñoo am sécurité ñoo am ngëm ñoo am kóolute waxum ñoom muxtadoona ñooy way gindiku ñi suñ borom jàll wax nañ ne wa tilka loolu noonu muy argument yooyu xujjatuna suñu layee ñun yàlla wax na ñoo koy dimbalee suñu yonente wa tilka xujjatuna yoo xam ne aataynaaha ibrahim ñoo ko jox ibrahim ala qawmihi ci aw nitam ñun yàlla nag narfoo darajaati man nasha ñooy yëkkati daraja yi ku ñu soob waaw daal di wax yonent bi ne ko ne la biir ne inna rabbaka wiir ne ne sa boroom xakimun ko xereñ la alimun ko xam na muy jëflanteek ay jaamam la argument yim jox yonent yàlla ibrahim ba mu jëfandikoo ko ci diggante mag ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla la suñ borom naan loolu ay lay la yoo xam ne ñoo koy baaxee suñu ndaw buñ ko yónnee ñooy leeral dënnam jox ko ay réponse yu am doole yu mën a daane la ay noonam ci kawi kàddu loolu mooy wa tilka na aataynaha ibrahim ala qawmihi nun nag narfau darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim toll nañ fi ñu war a yëkkatee jotaay bi